télé bi bégal sama askan Ladoum TV c'est Ladoum TV ning ci gis sa bopp jànge falun émission chez le vétérinaire dina ànd ak yow saytu wergu yaram santé animal ngir a saytu sama laanu mi dundee. fii ci Ladoum TV. jox la kàddu. mi nga mën a wax sa jaar jaar. danga ko seetaan bu la dara raw. Mm. waaw téléspectateur Ladoum TV ñu ngi ci box numéro 16 fii ci terrain bi nga xamante ni si mooy terrain xaar yàlla lan moo xew waa réel ñoo woote. bii mooy seen quatrième édition waaw ñu taxaw ci bergerie bi nga xamante ni si macha allah bergerie Namarel tubaar fakkaala ñu nekk ci càmm gi nag di liggéey liggéey bu doy waar tey ñu ñëw dëkk micro bi nag suñu benn rak suñu benn jarbaat xama mu nekk ci càmm gi di liggéey ci liggéey bu rafet nga taxaw ci box bi war a présenter xar nag gannaaw boo nuyoog téléspectateur Ladoum TV nga présenté ñu maal bi ak ñi mu fi nekk. salaamaaleykum mbokk Ladoum TV maa ngi nuyu ñëpp di leen siyaar di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax waaw ñu ngi si bergerie Namarel nekk fee ci Thiaroye Samsam bureau projet kii nag moom mooy Laye Sow Laye Sow di doom ci Golden Golden doomu Teranga côté yaayam kii la Sala Sala doomu Jamil la waaw. macha allah téléspectateur Ladoum TV yéen a gis Laye Sow mi di nuyu de passage euh, turandoo bi nga xamante ni si mooy Laye Sow càmm ko ñor waaw naka ngeen gise production euh, Laye Sow tey. ah production Laye Sow moom pour l'instant lu mu defagum moom doy na waar parce que bu mu fi ñëwee premier touram def na ay ay mbote yoo xam ne doy na waar trop ba ci moo jur kii mu ci huit mois mook fumel bële moo juraat añel bee tamit ñaari añel yi moo leen jur. kii mi ngi doog a amaat raq. macha allah téléspectateur Ladoum TV kon bu ngeen xoolee ñaari tëng yi nga xamante ni si ay doomu laay saw lañ kon nga xam ne Laye saw tey macha allah lan nga ñu mën a wax si ñaari tëng yi. ñaari tëng yi kay li ñu si mën a wax kay mooy rafet nañ trop macha allah ba pare ay xar xar ay xaru concours nañ. fan nga yaakaar ne war na mën a yóbbu élevage. mën naa yóbbu élevage fu sori. parce que si côté production muy góor muy jigéen dina defar ay moto yu am ay maturation yoo xam ne lépp tubaab kàlla ñu ngi koy lu ñuy wër ci xar rek mu ngi koy def ci xar si ay doom. ah téléspectateur Ladoum TV ba tey ci biir box bi gis nañ fi ay mbote ñaari mbote yu rafet ñoom tamit mbote yooyu. waaw mbote ay doomu laay lañ ñoom ak añal bi ñoo bokk ndey ak baay seen yaay surtout préfet fela benn doomu préfet bu góor bu ñu naan bébé Saloum moom moo jur seen yaay téléspectateur Ladoum TV bu ngeen xoolee surtout Saalum Saalum yi nga xam ne ñii duñu ay caaxaan duñu ay fo nekk doomu Laay saw nga xamante ni si ah tubaar fakalla Laay Sow mii du ay caaxaan macha allah macha allah seen yaay moom lan nga ñu mën a wax si mbote ñaari ñaari seex yi seen yaay. waaw seen yaay femelle la moo nekk nii. ah téléspectateur Ladoum TV bu ngeen xoolee femelle bi nga xamante ni si di doomu préfet kii du ay caaxaan du ay foo di nàmpal ñaari mbote yi boo xoolee tey euh, femelle bële nga xamante ni si moom it benn tëng la ñu boole kook laay saw lañ ko booleel mu wàccee tëng boobu ñu jëlaat laay saw boole kook encore même femelle bi mu wàcce ay seex seex yu mucc ayib tubaar fakàlla lan nga ñu mën a wax tey ci sélection bii ngeen def. waaw sélection bi kii nag moom mooy bébé de l'année moom mooy surtout préfet bu ma la wax moom moo mooy nàmpalaan mbote yi ñooy mbote yi kii mooy seen ñu jëlaat ko tegaat ko ci laay mu wàccee ñaar ñii mu indi fi ay mbote yoo xam ne lu mu juróogum moom dal na xel muy première doomam ak deuxième doomam yëpp lu ñu juróogum moom macha allah. ah téléspectateur Ladoum TV kooku mooy Laye Sow lu ñuy wut ci maal mi ngi ci moom bu génnee concours gars yi dar seen gémmiñ bu defee production gars yi yuuxu nga fàttali ñu bergerie fan la nekk ak numéro téléphone. waaw bergerie Namarel nekk fee ci Caaroy Sam bureau projet. numéro téléphone bi 77 565 88 07 maa ngi nuyu nag sama papa bu sama papa sama xarit Jibéeru Sow Alassane Sow waaw ok. mooy télé bi bégal sama askan.